ndax xam nga ni Kaolack boo xaree seen xol yi yaa ne copp ca waaw loolu leer na moom moo taxit ma woy leen wuy wurey wi amu seen fay taalum amuñu sama jëmm ji sago man it ku ne xam ne dama leen a bëgg loolu looloo waral lan demee korité gu bi partagé nañu ko ak yow mais euh, gis nañ ne lan demee korité bu nekk yaa ngi doon tëgg Saloum ñu ko doon defee cœur de ville spectacle yu doy waar parce que ci yow lañ njëkk a gisee artistes yi ñëw ñu fay les téléphone nga génnee en tout cas ci coin yi des fois nga génnee ci baaful yi stade Lamine Gueye la ñu ko changé ren spectacle boobu doonoon en tout cas lu lu lu neex waa kaw la tay est ce meun ñu nañ genre spectacle yoy ci dugg ci Sidi job ak lan nga leen di wax en tout cas pour rassurer leen ne tay événement bi dina dàq yi doon am non pour dire vrai événement bi tax la gëna jëlé jëlee dënn kër yi fi passé parce que bo seetloo ma ngi fi depuis depuis demb ci goudi hein ah, depuis demb la ñëw tok bir kaolak xam nga pour won wa salum que ni excellent donc nañu xaar yu gëna graw ndax ma ngi waaj nday njaay bànn ya ngi wacc njàpp sama dom ngi wacc té amna ay affaire yu bari yu ñëw répété yo xamné ñoom bu ñu ñëwee dinañ xam ne dinañ xam ne man daal leen laa leen di digal ku amagul billet c'est bon nga teel ko jënd te xam ne spectacle yi ñu répété moom dañu tëju un mois fay synap yëpp fay vidéo yëpp di liggéey te nag wax dëgg yàlla euh, liggéey yu yéen lañ doon liggéey te ku ne xam ne si di heure bu duggee si alum rek calan ci lay def tey ma fële fii suba ma fële fii waaye lu ma mën a xamal mooy fël bi may fël tey mooy gàcceel fël bu ma fi bu tay bee gën a neex bu tay bee gën a garaaw ndem sob na suñu borom incha allah yàlla nañ ci ak jàmm. bien. lu si relation ak eh, le promoteur Ibrahima Keita. ah non non kooku sama frère la Iba moom sama frère la sama doomu ndey la suma xarit la sama grand frère la man ak moom sekkatuñ sax ay affaire de promoteur ay affaire daf may tëgg fay ma Iba bu amut sax bu ma woowee ma ah, ñëw eh, te dërëmam ni mu ma koy joxee moo ma gënal beneen milliard bi may jox Iba daf maa gëm daf maa bëgg waa Kaolack aussi bëgg ma waa kaw woykat yi bari nañu ah. mais kaolak dafa melni fi la laa kaolak dafa melni fi la magge te liko waral nak yeen sa damay tok sama xarit bi Abou Sala nama yow lenn rek lay ñaan moy nga dund ba kaolak nga am fi kër ma ne ko amin ma waral wax jooju mu ne ma ni ñu la bëgg yow mënoo xam ñun ñi fa dëkk juddoo fa ñoo xam lool nak bu sama liggéey ñi ma dàqa fi ne fii Kaolack waaye bëgg yalla koy def ñom dañuma bëgg motax ma dugg do way leen wa salum te bu ma ne Saloum te tuduna dekk yi ci yi ci côté bi yépp moo tax chaque jour tuddé koy ci salu moy wa lat mengé passé Sokone xam nga mbir ki lañ ak liko wër yépp juste pour faire plaisir salu salu né donc tay ci ngone c'est la fête na ñëpp génn. nga télé a génn wala. ah bien sûr bëgg nyom nyom nyom nyom une heure et nyom fekk ma sur scène wa bëgg nyom aussi sama rak yi nga xamné ñi nyom ngi ci nyom bi def première partie ñu yaatal nyom ñu ci nyom xama ñom ñom ñom ñom ñom nyom nyom nyom ñom nyom nyom nyom Chifa. ak ça gars yu bari ñu ngi war a def première partie donc dañ leen di yaatal ñoom it comme ñun ni ñu doon yaatalee bu ñu defee seen première partie ba wàcc bëgg naa daal une heure et ma yéeg sur scène nekk ak ñoom comme d'habitude man damay tëgg ba mu leer waa Kaolack bu ñibbi wut du ma ñibbi incha allah. waxoon naa ci publicité bi ne ku tëgg ku xëccoog Sidi Diop le lendemain de la Korité dina mel ni picc mu tàbbi ci loxoy gune euh, voilà euh, tey euh, am na lu bari lu ci xew xam nañu ko ñun ñëpp. Hmm. loolu est-ce que euh, bon psychologiquement euh, ci biir événement bi lan la la lan la lan lay def wala yow jàppoo sax. ah non ñun dépassé nañ foofu nag wax dëgg neex yàlla dépassé nañu foo xam ni euh, ñu ngi génn di dem bitim réew que dem lañ jógee tali jaar Paris dem Allemagne te saa li ñu def yëpp guichet fermé lañ ko def te foofu yeneen i réew la donc waxuma la ak suñu réew gi nga xam ne fi ak Dakar deux heures temps la waxumalaak dëkk boo xam ni man bu ma tëddoon ba guddi nga tegal ma kaamel waatal ma. dama yeen dekk ñoo la gëna a bëgg barke borom Touba mën na wat ni Saalum la mhm. du dara Tamba la juddo na bëgg leen loolu mais eh, bo sétlo chaque année bala ma dem Tamba sax dina def lak ba paré doog a continuer le 13 mai ma ngi jëm Tamba mais buñ ma doon wax dekk yi ma gëna bëgg mën wat ni kaw lak la liko waral nak xamna ni peut-être mbirum yalla la ak seen doom yi nga xamni ñi ngi ci man ñom Abbas ñoom Aliou eh, Abou sala ñom Sipsi boo yëpp nekk ci man VFK tamit bëgg ma booy nekk ci man te nag nit ki liñ naan genn golo gudd na waaye foo laal borom xam ko seen doom yooyu nekk ci man ma leen di jàppale ñoom it ñu indi fii Kaolack bi jox seeni i loolo rek mën naa tax ñu bëgg la te doo ci xam dara ba pare tamit bëri na ay woy yu ma fi woy woy naa Baye Niass woy naa waa Saloum te ku ne xam na Baye ni mu mel ci xol waa Saloum mm-hmm. donc bëgg biñ ma bëgg mën na nekk ci point yu bari yoo xam ne moo tax ñu bëggee ko te maa ngi koy sant yàlla waaw. mais mais mais jërëjëf ñu ngi gis euh, fans club bi euh, déjà ñu ngi ci euh, buntu kër gi pour xaar la ay nit ñu bëree bëri xam naa dinañ la dinañ la xaar saat wala mais ñu ci ñu ci mënti doon mbëggeel gi ak cofeel gi mu gën a bëri ci saalum Saloum yi. léegi nak euh, suma ma sëngoon bala ñoo taxliko euh, euh, nga nga jox ñu nga jox ñu dara en exclusivité en tout cas avant ñuy ag stade Lamine gay nata sama naataango bi di ñew voilà wa wa wa soppe yi moom xam nga dama doon nelaw sax di noppal voix bi mais yeen mom xam nga bu ngeen ma soxla fo ma juk boo ma xol sax xam nga da ngeen ma bet ndax dama simmiku woon di nelaw mais bon liko jar rek ko jar quoi ko complice di dañ ma fay pour ma liggéey donc loolu tax ma genn mais surprise mom nañ ma xaar stade wa dina neex dina tang dina métti yaa ok Sidi yaa ngi wax ba am solo léegi ah, sa relation ak diggante dëgg la euh, boobu noonu euh, parce que chaque dañuy gis ne bu waxee xam nañ ci dara quoi. waaw Kaolack nag nañu waxante dëgg nag waaye nag euh, orchestre yi nekk Dakar bari nañu waaye fépp koo ci dugg dëgg fekk waa Saloum lu ci mel ni ki nga xam ne mooy royukaay yi ñëpp muy papa Youssou Ndour boo fa demee di nga fa fekk coombaay Coombaay ya, wa fan la wa kaolak la kon nak kaolak bo demé ci orchestre vivian ki fa nek di babakar fek bo demé ci pap Diouf ki fa nek di kan eh, Bakkan tay nga ñew ci Sidi amna Abou Sala amna ñom Abbas kon nak wa salum dañu ma jigadiwu te té nak amna ño xamni suñu borom mo dogal luñu ñu laal gën luñu ñu laalu te it nak yalla dogal xébuma len ndax fi budul événement sax dama fi ñew di fi dalu dama fi ñew di fi sakku si ñaan ma bari nak ay gor yalla yu bari yu nekk fii biir di ñaanal ta yalla rek tax donc sama digënté ñoom c'est une longue histoire. merci beaucoup kon dama la jël benn émission benn waay ni ma Moustapha Cissé du du tontu li nga xam ne chaque koy classe wala koy wax leen affaire yi. non non non loolu moom xam nga mënu leen a mënu leen tontu donc li nit ñi di wax yé boko bëggé tontu nga fi yagg dañuy ñaan rek chaque jour suñu borom boñu def moñu def ci kanam te ku nekk ci kanam nak il faut nga dégg. yu la neex ak yu la naqari donc lépp lu ñuy wax lu ñu naqari rek dañ koy jëndeek fot dañ koy jëndeek waxi neexee ñuy wax donc moo tax du ñu tontu ñëpp yonent be ñu gënoon foofu te dañ ko daan wax lu nekk waaw te maa ngi profité ci occasion bi di na déwénati ñëpp di baalu ñëpp ak képp koo xam ne mos naa dox wala ma defee nu la neexul rek maa ngi profité ci bis bi di la déwénati di la baalu àq. voilà merci beaucoup. une photo de famille s'il te plaît avec. Euh, maa la bëgg fuuf. wallaahi. ba organiser fan club Sidi Diop Tour. wallaahi ànd ak sama njaboot. dama bañ riir bi bëri moo tax ma ma tànn ci ñett ñu la ànd léegi la kenn ki dem. kii mooy sama taaw kii mooy rakkam. ka ko ñetteel dem na. ndax li ko waral. Sidi maa ko bëgg. maa ko bëgg njaboot. wallaahi la azim mag laa. maa ngi dugg ci sama 60 ans. wallaahi ma fenal ci kuy dox ci suuf li may am ci wërsëg yàlla ma koy jox. waaye boo bëggee nit danga koy wan ne bëgg nga sama doom ji mooy mooy la jax nekk bañ ko ne sii di jóg ñëw na ko woon fu ma toll di ko jooytu la ñëw ne mu ne ma sa waa ñëw na ñëwal nga seeti sii di jóg ma ne ko seeti dinaa ko gis ne ma wallaahi la azim ku jafewu da gis soo yeggee di gis sii di nag maa ko bëgg. di ko ñaanal te yàlla aaram bii yan na ci doy aaram bii ca kaw ca kanam yan na ko ci yàlla may lu ko we njortam yan na ko jëlal may lu ko we njortam dafa ca jëlal bi ko waaw may jëlal lan ñu wéykat bëgg si di tayama waaw waaw yow si di jox yaayam awaay tàccu leen mu neex gërëm na yaayam awaay Sidi Diop gërëm na yaayam